barki Serigne Bamba ragaluñ la billahi wallahi ragaluñ la buñ waxe nga guux sa lexi yok sa ñaaway bi tok ñu xol ñu bekk Serigne Touba fran ragaluñ la fran dawo suñu yaram barki alcorane kan da nga war a respecté waa lamb ji yow lamb ji amoo fi benn bruit borom jaal bi dikk na sax mo bruit yow amoo ben bruit fran pura mënul bëre de day buuxante rek fran do champion ñu nanguluñ la de da nga soxor champion du soxor ndaanaan du soxor ah ba pare yapp presse bi taxi fran amo bilai yow yow billahi wallahi fran ken top la fara respecté nit ñi momo nit ñi beew nga yaakaar na yow yaa gën si àdduna yaa pour yow yow Sénégal yaa fi gën a nekk champion respecté jaamu yàlla yi. mais Franc neexul ba neexul mais xamul boppam. ci Franc waaw. Franc mel na dinaa naan. barke sëñ barke naa ma xam ne Franc xamul boppam. tel kenn topp ko mbëru yóbbaale la. Talfa la Talfa barke Serigne Bamba fay fay Talfa 50 millions moo gën fay Talfa moo gën fay Franc 50 millions. jërëjëf kaddu yi am na solo barki démb Franc def benn sortie wax ci Boy Niang wax ci mbaru pikin tol na fu gaay yi egg na fu ñu wara egg dañ ma ragal moo ra jëlu ñuma mu communiquer communication essayé bari na polémique ñu bari ñu ci wax lan lan noo ko gisee. nit bo xamul bo xam dafa baax pour ñu wax ko boo xam mais Franc neexul ba neexul mais xamul bo xam. ci Franc waaw. Franc na di ndaanaan. barke sëñ barke sëñ naa ma xam ne Franc Franc xamul boo xam. mu ne am Sène du champion d'Afrique. dañ koo daan dafa war yaru laaj ma la ma dafa war yaru tay Franc na ko wax lu ko nis mu ta wax tay si aduna ah, ah. <laughs> Franc laa la wax boo gisee ni ma waxee xam na ni mere naa Franc dinaa ko wax lu ko mës a mës a wax si àdduna gis nga àdduna làmb boo ci nekkee da am yar am teggin nee naa la àdduna ku dul nangu laa dal dina nangul mun a nga nangu sa bopp yow champion nga doo nangul ñeneen ñi champion nga waaye bu nekkul champion nooy bëreeg moom doo dem xooli ku nekk champion nga bëreeg moom ndaanaan kay bu bëggee doon ndaanaan da daan ndaanaan pour nekk ndaanaan wala nekkul noonu yow boo nangul ne Eumeu Sène la boo nangul ne Balla Gaye champion la kon lan nga nga bëgg a bëreeg barki Serigne Bamba laa la waajal Eumeu Sène du bëre ak Franc lii kay maa la ko jox kon xibaar billaay wallaay taalaay Eumeu Sène du bëre la moo tax am. billaay Eumeu Sène du bëre ak Franc Franc xamul boo xam. ba pare man dama koy wax dama koy wax ñaar ñun Franc dañ ko seetaan Franc premier grand combat Papis Général moo waroon bëree premier grand combat bu Moussa bëree bu mu njëkk a bëree si addunaam Papis Général moo waroon bëree Sakho Dior si la Sakho Dior blessé woon Franc ak Jara 2 si lañ bëree grand combat la woon kon ñu ngi topp Franc démbam fi lañ fekk barki démbam fi lañ fekk Franc amul supporter parcelle kenn topp ko déggal baax ay waxu nit laa lay wax dégg Franc amul supporter nee naa la parcelle kenn topp ko mbëru yóbbaale la te mbëru yóbbaale da nga war a yaru xam nga ku nekk ku mel ni góor soog dama ko naw ku mel ni góor soog dama ko seetaan mu bëre xam ko si muy wax lu baax barke alxuraanu karim góor soog dama ko naw ku mel ni garga de nit dàq ko bëri si àdduna muy wax lu baax mais waji xana fa touché waa Pikine. dem gis naa ci mel ne. wax du question Pikine de wax jee ñaaw. bu doon Franc dafay def dara sax bu ñu nit comme ça bu Franc dafa jël dafa jël avance di signature ak ñoom ñu ne waaw yow jëlee avance di ko xas. Franc bu taxawee tey ne Eumeu Sène du champion d'Afrique moom champion la pikin Sène bu ko jëlee mu daan ko waa Pikine jooyaat loolu waxul loolu nee Balla Gaye moo ko warul diggante warul wax warul taxaw ko combat la Franc def lu deful wala fara moy kan ba ken duko wax duko ko ak Alioune ya Seye 2 ah Franc mooy kan quoi moy kan ak la la fi def ben fara bu ñu bëreeg soog kan moko ko han fara mo ru ñaata la. ra na ay 60 millions ki fara mo ru 30 millions la rek leen. Eh, même ñëw Franc ba muy bëreeg kii ba muy bëreeg soog kan moo ko tëggoon waa jàmbaar waa jàmbaar dañoo dem yokk si mbaru parcelle ñoom Anaconda lañ jël ay ñom Franc mbër. jël booy parcelle yokk ko pour Franc bu bëree stade mun a nel un Franc bu muy bërek Forza yéen ñëpp a ngi woon stade ana ci booteeru Franc yi dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan làmb quoi ñu bañ a naxante quoi xam nga tey président da ngay wax dëgg ñu bëgg a yaakaar yow affaire man waxuma affaire seytaane Franc c'est dafa xamul boppam dafa gàpp ñi xam nga bopp dafa yaakaar Sénégal moom rek moo fi champion moo dafa yaakaar moom Sénégal moom moo fi que Konyam ken top ko barki Serigne Bamba amul ci boo teer yaa ngi dégg dama lay ñamal le muy bëre Forza ana ci boo mi estar mujj gi Makan dafa mujjee wàccee ñu nekkon si kaw. waaw fa la ma fek kay. ñu renforcer kii bi. pour ñu renforcer pour ñu renforcer estade bi pour ñu fess amna ci supporter kan moo ko topp. jaay barki Serigne Bamba jaal ben bolok ma ñamala la benen barki Demba Ndiaye diggante ma Bombardier kan moko teug Jambar ak teug jambar dañu wara féliciter Talfa ak ñang balo dañoo teug ñang balo, ne un ñang bal lañ teug teug talfa talfa amna na supporter ñang bal amna na supporter waaye mom eh, talfa mom Sénégal wa légui talfa moy borom jaal bi ñew na ñu mëna a coiffé loolu pour pour boy passer li dimbali franc pour supporter ko amna benen boy bu dëkk bu dëkk passer tamit dama bëri si wooteer nu mu tudd te mu xees. kii turu Aziz boy bu dëkk Sokoy ñu mu tuddu dama xess xees. Eh. dañoo jël caaru piol jël jël jël ñang ñang balo jël franc jël jël jël jël talfa boole ko tëgg ko xam nga kon xam nga wa passer ñoy tok ci bor rek ka la ci si rek après yi dimbali franc franc promoteur bu ko tëgg doo si génn. barki lay wax ni barki de mo ndjay tëgg na nako wa jabar bu ko tëggee xam nañu def dañuy ut boy passer am mboolay passer passer apart part Lo la la wax boy ñoy dara na ful ñoy yëngal mu neex mu nakari muy Talfa ak Ñang balo Talfa Ñang balo man mako wax. Talfa la Talfa barki Serigne Bamba fay fay Talfa 50 millions moo gën fay tal moo gën fay franc 50 millions talfa boo ko fay 50 millions mu dugal stade bi franc boo fay 50 millions mun na dugal mun na dugal ba stade franc franc daa jot tëgg mbër boo bëggee bëre moom da nga koy nawloo Eumeu Sène daam lu mu def si làmb dana ma wax ne dama ne Eumeu Sène daam lu mu def si làmb ba ba ëllëg mu diine franc mënu ko dindi mu ne jàmbaar de ba bëgg nangu lu si jàmbaar da nga koy tagg jàmbaar ba pare weexal sa nawla du la tere weex mais wax ju ñaaw da ngay indi sa bopp ay noon te du ko jar Franc na xoolal communication am Franc moom làmb moo fi gën presse bi sax presse bi presse bi am na ñoom du wax ak ñoom Franc pour moom moo gën si moo gën kenn du ko jël bo Franc da nga mos a woo émission bi ba mu nangul la ko yow moo ko koy jël fi émission musuma ko jël sa Apalik TV ak moo koy jël émission dégg dafa yaakaare dafa beew yaakaare moo gën fii nekk champion barki Demba Ndiaye xam nga rëg-rëg nangul naa ko champion laa ma nangul champion rëg-rëg day xola day daan tay Luc Frappe day daan tay day dan tay rek xey dem dan dem dan lig simple Franc dafa dan dafa dan sooxu tay Franc dafa dan tok sooxu tay la wax xey dem Serigne jay gene ko si lig simple Serigne jay mo gene Franc lig simple wa mo gene Franc lig simple Serigne jay bu faas jël bu jël bu ko gën jël bu ko Serigne jay dan mo gën ñaaw si jël yi waaw pura pourtant mënul de day buuxante rek man xam nga eh, lan la la jàpp moo bëre lañ ma la jël ay jël spectacle da ngay bëri nga xam ne champion jar garga eh, de ak góor na bëri de déglu ma rek Gora Sock gis nga jël mu daan Cobra bi Pikine eh. Gora Sock gis nga jël mu daan Mapol xam nga da ngay xool nga xam ne ñii dañoo mën a bëree Franc day buuxante day jaay gars yi doole Franc ba ki demoo ñaay ma pokala bëri woon ligue simple ku daan ah kan, kan moo daan Serigne Ndiaye nu mu ko daanee na nawloo gars yi Franc na nawloo làmb ji nit ñi fi boorum nangul laata kenn doon nangul de Franc doo champion ñu nanguluñ la de da ngaa soxor champion du soxor ndaanaan du soxor ah ba pare yàpp presse bi teg si Franc amoo yow yow kenn topp la Franc respecté nit ñi moomoo nit ñi beew nga yaakaar na yow yaa gën si àdduna yaa pour yow yow Sénégal yaa gën a nekk champion respecté jaamu yàlla yi Franc lan la. Franc est-ce que lu ñëw gëmul boppam Franc gëmul waaye bàyyi ma fa gëm boppam barke Alxuraanu Karim billaahi wallaahi taalaahi fay Talfa mu bëre moo gën fay Franc mu bëre barke Seydina Mohamed Talfa moo fay sa lamb ji keroog moo ñaŋ ak caada bu yol fana daa am boter kan moo top fana Franc presam ci si ru koñ ben koñ la kay defee ci ru koñ bi Tapha Mbeur Tapha Mbeur Tapha Mbeur Tapha Mbeur estar passer la jël def fana open pres ndax fana dem estar passer def open pres ah Tapha Mbeur fa def defee presam press am Tapha Mbeur fa la defee open press am stade Pascal Franc fa la defee sa bir koñ dafa sa open pres du sonal nit ñi champion ba yow bir si Modou Lo nga wëru do yaru do yaru fana fana si aduna la si aduna Alioune sey lu mu def si lamb Franc def ko ci lamb Eumeu Sène buy may chance xam nga la war a may chance bu tegee si yoon barki Serigne Bamba Eumeu Sène Alioune Seye la war a bëreel Alioune Seye yaru na joxe na respect Eumeu Sène bu tegoo si yoon rek bu dee Sénégal dañuy wax dëgg rek barki Serigne Bamba Eumeu Sène Alioune Seye la war a bëreel Alioune Seye moom moom franc doole Alioune Seye moom franc public yaa may dégg Alioune moo gën a yaru moo gën a joxe cër yaa may dégg mais tey kon may rek nañ nawlante abu yo sama nawle nga dama la war a jox respe nawloo la mais abou buma taxaw ne man ma fi gën fana bu non dafa toj dafa ray gaynde gi wala dafa toj gay pour mom khas khas balle gay du roté beurek balle gay balle gay ba 5 ans si 5 ans si 5 ans la don roi zeren fana ñaar at mu ci lamb ji fana ñaar at mu ci lamb ji la wax ah fana ñaar at mi ngi beure balle gay si 5 ans la de roi zeren arènes si 5 ans la balle gay dégg roi zeren fana mom bu taxawee bu nga khas yow bo mo jé bu nga dal ak bo mo jé bi bokkul bu mu calculé loolu de jey bu mu daan ak jey bi bokul kon tay nit bu nax sa bop bu nax ñi ngay andal bu la jox micro nga taxaw wax lu neex fi ñun jël micro taxaw wax lu ko neex ñepp ga man wax ju ñaaw ñepp ga man te lu ñu xam dafa bari na yaru ma mané na yaru na yaru la wax mané na yaru mais mais Franc ndaanaan gi mu don ci lamb ak yeg gi mu yëg dooleem bu ñëwee ci làmb neexal làmb est ce que tamit gars yi ragaluñu Franc ponkal yi xam nga jël na fi reug rëg fanee paaj di top reug reug di nga xass ba reug reug jël combat ya ngi deg pour naa barki Serigne Mbamba lu reug reug lu reug reug def ci carrière am xaj bu xaj bu Franc defal ko ci carrière fara moy seul mbeur bo xamne morom mbëram da kaa jàpp daan ko 9 fois fara moy seul mbeur bo xamne morom ben mbeur moko japp da daan ko 9 fois reug reug Reug Reug day bëre Reug Reug day bëre tay day bëre tay bëre day bëre tay bëre door daan dem bëre bëre simple franc benn yoon la ko tànn seen njaay génne ko lamb ji na dem bëre waaj lig simple mais li yëpp nag sokk ñu yab ah sokk moo waral waaw sokk nag boo xoolee nag moo yab gaay nag waaw sokk ñu yab sokk du sama sokk man da sokk franc sokk la daan rek bu nga yaakaar daan na pikin ñëpp na yar na yaru ngir yàlla yorante bi franc naw loolu nit ñi mais daan la daan franc laa la wax bay bëre ak bébé Saloum yaa ngi bay bëre ak bébé Saloum kenn moo jamay kee ñaari personne la Franc indi ba mu bëre ngeer bi zap Fallou Ndiaye moo ko tëggoon ba mu bëre ngeer bi zap ba mu bëre ngeer bi zap Fallou Ndiaye ko tëggoon Fallou Ndiaye ba mu bëre ngeer bi zap Franc a personne la ko indi ah lan la luy problème Franc dafay gën wala mo daa fayeeku lu gars yi fayeekul wala dafa daan lu kenn daanul Franc kan la fi daan à part Bombardier kan la fi daan Bombardier ba woon ak Bombardier bi ute nañ ah tey boo taxawee tey exemple man boo taxawee tey boo taxawee nii nga ne yow Balla Gaye bu la da kii bu la daan nu mu tudd ba ma jël bu la daan yaa ko daan moom daa waroon wax patron Modou Lo bu ko daan maa ngal daan patron daan. de ba ma jël moo ko daan. Balla Gaye daan ba ma jël. léegi Franc bu yëpp Balla Gaye weesul mu taxaw naan Balla Gaye Modou Lo bu la daan kii bu la daan ba ma jël mu daan maa ko daan ma jël bu daan ak ba ma ba ma jël moomu ak ba bi bokkul. Franc yéen waa Pikine lu seen problème ak parcelle. de de de boo téye micro di wax day yaakaar am. xam ngeen parcelle bu baax parcelle la mën de. abu kay xam ngeen parcelle bu baax yi. abu déglu ma abu déglu ma xaaral xaar ma ñëw xaar ma ñëw abu boo téye micro wax man su ma téye micro wax gars yi dañuy yaakaar ne Pikine laay ma Pikine de lamb laay waxal c'est que dafa war a lamb ji nawloo presse bi nawloo nit xam ne moom dul dara booy ñoom talfa lu ñuy indi lu ñuy def seen yaa may dégg ñoom Talfa ñoom ñang baalo nu ñuy def parcelle Franc nu ko def noonu boo yeeka dàq bëre ñoo ko ëpp coow ëpp ko public Franc si Modou Lo la wéeru bu ko di tooñ gars yi na nangul gars yi champion góor a soog barki sëñ Bamba Garga 2 laa gën a ko Franc na bëri nañu ay kele ma gis góor a soog laa la wax ak Garga 2 laa ah, jël ay drapeau indi ay médaille waa léegi Franc war a taxaw si ñëpp di mun a Eumeu Sène du champion d'Afrique Eumeu Sène du champion pour lan a nit bu soxor xam nga tay Sa ties bo gisé mo Eumeu Sène ñu bëré maam ñi da kay waxal gis nga mbeur mbeur mbeur mbeur mbeur ba bëggé bëre ak moom da nga koy nga kay wax ngay wax lu nek xam nga tay tay bu ma taxawee si micro di wax bëgg a bëre ak mbër damay communiquer communiquer ba bu jaar yoon ndax nit bo né du champion boko daané daano champion bo né champion la boko daané champion nga daan bo né du ndaanaan boko daané daano daanoo kon bo nangul mbeur bi lay bëre ak est-ce boo ko nangul war nga bëre ak moom rek la waay bak sëñ Tuubaa ñu ragaluñ ko de Franc barki Sëriñ Bamba ragaluñ la billaay wallaay ragaluñ la bu ñu waxee nga guux sa lex yokk sa ñaawaay bi toog ñu xool ñu bak sëñ Tuubaa Franc ragaluñ la faraa dawa suñu yaram barki alxuraanu kan da nga war a respecté waa làmb ji yow làmb ji amoo fi benn bruit borom jaal bi dikk na sax moo bruit yow amoo benn bruit yow amoo coow amoo dara ba pare mu taxaw di xaste Franc moom ñaari combat la bëre nee na ñaari combat la bëre amul amul victoire Talfa ñaata combat la bëre six combat ëpp ko coow ëpp ko supporter xanaa looloo gën a dee Talfa ñaata combat la bëre mook Franc ko ëpp supporter barki Serigne Dina Mohamed Talfa moo ko ëpp supporter billaay wallaay. mais jamono ji lamb boo nee ba ba lim supporter yi. ma ne Talfa laa la wax laa boo limee Modou Lo boo laa wax boo limee Modou Lo parcelle da ngay lim Talfa far foos. mais mbir ma may 50 bloc doyul. ko de parcelle laa parcelle. abar molo la la wax ci ay supporter talfa ak jang balon da fay tegg la la wax de wolof xana yu ma wax wala deg ko nit bu soxor ya ngi deg ay caada piol ñoo franc supporter france amul supporter xam nga franc kan la kan la méngool supporter jos <laughs> jërëjëf ngeen wax ko dëgg liiru jaar dañ ko drapeau la 20 sama papa la dañ fay dem Ya ngi deg la 20 daa siisu nag daa jaan ñi ngay ñi ngay ñi ngay ñaanal nag borom armée yi bees yi ndax liiru nag jën na information boo xam ne à so information à liiru jën na bàmmeel liiru jaan jën na bàmmeel armée yi bees yi géejawaay waay na fi des non jën na bàmmeel dañ leen na nee na échange lu muy dund gu déggal lay liiru jaan jën na bàmmeel amu maa ngi jaajëfal ñëpp di nuyu ñëpp yaa ma dégg di di wax nit ñi bu kàddu jubee ñu xam ne doomu aadama moom waaw ñun matuñu quoi mais tay ko ni wax rek am buy def sorti defarul sorti pigin lamb lay defal sorti man ko wax ci lamb lo xam ne sul nonu damay genn tont na ken mom ma ragaluma ken te barke karim tolal loo neex man nit duma nit duma tekk wal nit duma menacé man amul kuy kuy tax ci kaw souf ma ragal la wax deug barki Serigne Bamba fuma deug fek fa lamay bay ku may ma ray ci deug ku may bàyyi ma bay ci deug deug moy ñeek moy muju mais ben wax la ñuy wax lol nit ñi 30 bolok bi mënoo ko jënd nawlool nit ñi respecté nit ñi